mbooloo ci julli fardin ci farata farata boo xam ne xayri jumaa ci ndu julli jumaa mu ma lum doon mu ne sunnatum sunna la sunna la mbooloo ci lu dul julli jumaa te julli ko farata la sunna la mu ne waaye nag wala te tafaadalu du gënante nag déedéet ngëneel la déedéet bo julé julli mbolo am nga julli mbolo bu gisa benen mbolo nga ne mbolo ma la ñoo gën ma julé won déedéet wala te tafaadalu dede léegi nga ne xana bon da nga am ñent rakay yeb wala ñette yeb wala ñaar ya mu na ah nak wa inna ma yahsul dana mu am mom ngëneelu mbolo ga mu ne fadulaa ngëneelam bi rakatin ci benn rakkaa nga am ci julli mbolom am nga ngëneelu mbolom ma muy ne koo xam ne dafa julli moom kenn gis mbooloo sopp nañ mu baamuwaat lu sopp dong la nag bu ko neexee dañ ko def waaye def ko moo gën ndax yonent bi moo wax ne julli mbooloo moo julli kenn fanweer ak juróom-ñaar ciy ci defe naa bu ñu waxoon ne tey da nga yor sa portable bii ne boo ko jaayee fii ci gox bii yaa ciy am junne boo dee marché yaa ngi ci am ñaar fukki junne juróom-ñaar. da nga dem Saalum sax far paas jaay ji ko Saalum moo tax mu ne kon bu ñu def ba soppeeku ne nag li man lam yuhasilhu ko xam ne amut ngëñalu mbooloo ma sopp nañ ci moom ca kanam ay da baamtu ci bind ci mujj gi sopp nañ mu baamtu nga ne ko bu jullee ànd ay gune nag mu ne bu gisee mbooloo moo xam ne ay mukkal lañ sopp nañ ko moo tax mu ne ka musallin bi sabiyin li ko aju julli ànd ay gune gis na mbooloo mu xam ne mu kalfa lañ sopp nañ an yu'aada mu baamu ndax buy jigéen nag mu ne lamraatin ma jigéen nag jigéen jigéen moom donte manqué dara darajaay góor waaye ay mukkalaf lañ ko ànd ak ñoom julli gis mbooloo mukkalaf moo xam ne góor lañu bul baamuwaat nga ne ko waa booy baamu nag nooy def ndax julli ñaar julli moom dafay doy waar mu ne mu fa widan muy joyal mbiram ci loxo yàlla bu ko ci neex moom borom bi mu def ko farata da ci topp def naafila bu ko ci neex rek mu def ko farata bu fa wiidan te it nag ma moom day nekk ma moom nag dootu mën a nekk imam nag comme day baam moom day nekk ma moom bu fekkee dafa baamu nekk imam julli ko yàqu na ku ku ko roy sa julli yàqu na ndax julli kuy baamtu day niru naafila moo tax te kenn du julli naafila ci gën farata ci gën kuy naafila ne ko ah, léegi ñun li xam ci mbooloo lu mu néew néew day ma ñetti nit jëm kaw da jëm a takk si ñett la commencé xanaa bon bu fekkee day baamu day ànd ak ñaar ak moom ñett wala ñaar ñett ak moom ñeent mu ne walaw maxa waaxidin doon dafa ànd ak kenn nit mën na baamtu te am na mbooloo walaw maxa waaxidin nga ne xanaa bon julli ga julli juróom yëpp la mu ne ah xayra maxribin bu mu nekk nag timis timis kenn ko baamtu ndax boo baamtoo timis day mel ni kon julli bëccëg yi da ko defal witar loolu ñuy baax loolu ñuy bañ ndax ndax kay julli bëccëg yi timis mooy seen witar laa bëgg wax mooy seen witar te te witar kenn du ko baamtuwaat am ñu dee du lool sax gannaaw génn gi day doon naafile kay te gannaaw takkusaan kenn du ci naafile kon bu baamoo timis yow naafile nga gannaaw takkusaan kon xëy na bi mu ne nag ka instant yii nii ki julli gexe boo dee witir gannaaw witar. kenn du baamtu fii nag dana leeral Aliou ko tënk mais du lu ñuy tënk nag dégg nga ba diri ndax maanaam ko daf ko def idlaax waaye lu ñuy tënk la nee na julli gexe moom boo xasee witar doo baamtuwaat xam nga la wax di witar ba wér na ndim gexe gi wér na ndim gexe na bu ko def witar du boomawaat wante bu dee gexe gi wérul misal bu wérul lan mooy gexe gu wér julli gexe gu wér mooy da nga julli timis teg ci gexe ah witar du baamuwaat gexe ga wante bu dee fekkee nga timis bu noppi fàtte ko julli gexe witar saqal ni yaraman julli woon timis gexe ga ya na witar bu yàqu na xam nga lu tax bokk waxtu ñaar kon timis nga war a njëkkee teg gexe witar bu doog a wér wante boo njëkkee gexe witar bu noppi fàttaliku timis gexe ga yàqu na ku witar ba yàqu na moo tax mu ne nag gannaaw bu wér gannaaw bu wér ta leeral dégg nga ne fa in aada ndem baamu na gannaaw bu witaree witar bu wér wala mu yàqit dafasul ab rakka xataa naka dagg julli ga wala gannaaw tamit la baamu te amul rakka xataa wa illa ndem am na rakka nag déggal de ndem gannaaw bu amee rakka fàttaliku ne moom witar na witar wér wala timis la safa ana ko tóolante def ko naafila da ko def naafila dégg nga ñu ne xataa boon julli ga matut mu ne wa in atamma doonte timis dëkk mën na ba mu jëf ba mu timis ga am na ñetti rakka ba pare nan di ñeenteel nan di ñeenteel ñu ne atam ma ñu ne amu ah, ne walaw sallama doonte sëlmal na attaan na ñëwee bi raabi atin ci ñeenteel waaye in xaru ba ndem yàggul nag in xaru ba diggante bi mu fàttalikoo ak fi mu sëlmalee yàggul wala génnul jàkk ja wala génnul jàkk ja nan di te mu sujjoot nag wa aada na baamtu wa aada na baamtu mu atamun koo xam ne ku ñu rawoon la dégg na baamu julli kum royoon wa aada mu atamun kuñ jiite ku mu eedin ci baamtu abadan faw nag abadan faw nee koo xam ne da doon baamtu julli mbooloo julli mbooloo ñëw roy ci imam boo xam ne imam bi mu roy imam bi dañ ko jiitu muy baamtu da ba mu abadan mos bu doy war la abadan nag ndax dafa dafa roy ci gannaaw koo xam ne kuñ kuy baamtu la kuy baamtu malaaka yi daf ni te doo ñu kuy baamtu yow nga doon moom ci moom yow ci moom yaay baamu abadan ndax kuy kuy kuy baamtu yow miy julli ci sa imaam bi day baamtu mooy loolu rek mu neex a dégg mu miy julli sa imaam bi day baamtu da ngay baamu abadan moo tax mu ahada baamtu na mu tamun koo xam ne ma moom la mu tamun mu aydin ci aji baamtu abadan faw xanaa ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari ñaari woy bant la kii di julli julloon na ba noppi di bamtu nga ñëw yow war a julli farata te mosoo julli julli gi julli goo ko tey nga war a ci moom baamul abadan nu mu nu muy bamtoo nag nu muy def mu ne af saasan kenn par kenn af saasan daf ko def mbooloo da du ci nam mooy moom kenn baamu rek afsasa léegi nag bu ñu baamtoo bu noppi saqal ne ko ah yow ngi ngay baamtu te bu njëkk julli woo xaar nga fàtte yow gi ngay baamtu ne julli woo ko woon gi nga ne kon lu ci mu ne wa in tabayyana nem dafa biir leer naññi xadamul oola ñàkk julli julli gu njëkk ga aw fasaaduha wala sa julli woon na ko dafa yàq woon kon gu ñaareel gii acca at doy na ko gu ñaareel gi doy na dégg nga léegi nga ne ko nag bu fekkee dangay ngay julli dem ci rukkoo bu rakk bu mujj ba ba rukkoo am mu kalafu ñëw ndax dagan na nga yàgg ci rukkoo ba ngir mu kalaf mi am ci julli gi ndax dagan na mu ne wala yu taalu deful yàggal rukkoon rukkoo di daax la ngir aji tàbbisi ngir aji tàbbisi dégg nga ne jaru ko nag sim nañu def ko ci imam bi ku ñëw si fekkee ne ragaluñu loram loram fekkee ragaluñ ko fekkee yàggalul ah mën na indi loraange kon na ko na ko bu dee nag ku jëloon kenn bu ko neexee yàggal fa moo xam bu dee ku jëloon kenn lu ko neex na ko rukkoo waaye bu imaam nag moom kii dafa feebar kii dafa am soxla jigéen ñaa ngi boot seen ñu ngi jooy bul yàggal gannaaw imaam la bu yàggal dégg nga wala imaamu ratibu imaam boo xam ne dafa nekk imaamu ratib julli moom kenn ci jàkk ja ka jamaatin ko mboolo ka jamaatin ko mboolo mhm. am na ngeen lu mboolo ba da yéen a jiite am na ngeen lu mboolo ba maanaam bu gisee beneen mboolo du baamuwaat gannaawam menn mboolo du julliwaat dëkk ci dëkk ci koñ ba wala dëkk ci ba bu dee ñuy tukki nag mën nañ fa jaar ñoom julli mhm, ka jamaatin wala tub daw deful tàmbali salaatum julli ba dal iqaamati gannaaw bu ñu xamale imaam nga ñëw di jéem julli benn julli mukk jàkk benn jullee fi am moo xam naafila wala leneen doo ko fa doo ko defaan nag inu qimat dem li xaamalee taxawalee na julli gi woote moom mu kalaf mii salaatin mu ci beneen julli dafa yéex a julli takusaan kii ka tisbaar kay daf ko yéex a julli ñu jàkk ji fekk ñu julli tisbaar subhanallah ñu julli takusaan na dagg dem julli fële ba pare doog ñëw wala bëgg naa fi la déedéet mukk islam d'accord ci inu qimat nim li taxawalee taxawalee na julli ga woote moom fi salaatin mu ci beneen julli xataa te dagg julli ga na ko dagg bu dee naafile la xataa na ko dagg il xasee ne ragal na mu faat rakkaatin faatu benn rakkaa ci julli imaam ga dagg julli gi daw dem ànd ak imaam ba ba di nga wax bi wa illaa dem nga xam ne nag ragalul ko atam man na mottali an naafilata naafila ga na mottali naafila ga wala imaam bi muy dugg si moom doon julli tusubaar da ko yéex a julli bi imaam di ñëw ci tàkkusaan bi fekk muy dese benn rakkaay ci tusubaar ba war na ko ne mën na ko julli ba noppi te imaam du am benn rakk ci tàkkusaan bi na ko mottali na ko mottali moo tax mu ne ko aw farata wala farata boo xam ne xayraha bokkul ak bii imaam di julli ndax waaw léegi nag bu dee nga xam ne moom moo njëkk ci jàkk ji rek yàkkam ci li xam commencé julli imaam ñëw te genn julli gi julli gi bu dee genn julli gi la ba liqaam commencé julli ñëw liqaamal imaam te amagul benn rakka insarafa na wàññeeku fi saajiti ci rakku ñetteelam ba xan safen wala def ko li nga xam kon di am na ñaar rakka mu ci ñetteel ba ku ne toog taay sëlmul def ko naafila dem dugg xànd ak imaam bi mu ne kal rakk bu njëkk ba inaa xaddaxaa ndem nga xam ne façon rakk njëkk ba na indi ñaareel def ko naafila gannaaw imaam bi julli gi mu julli la imaam di julli mu def ànd ak imaam ba nga ne ko nu muy daggee moom a jaaxal nag mu waqat xoo dagg gu muy dagg bi salaamin ci sëlmal lay xamee ak mu naafin wala lu wuteeg julli rek sëlmal wala lu wuteeg julli tourne rek jublu penku jublu xarfu wala mel ni kuy génn julli ko dagg mu lay daggee ci sëlmal rek wala lu wuteeg julli dagg na lay demee de bu ko deful nag. ne na wa illa ndem nga xam ne daggul julli gi dem ànd ak imaam ko de dafa dem ànd ak imaam di la nekkoon la continué rek dugg ànd ak imaam mu nekkoon aada na baamtu gi mu nekkoon baamu gi gi mu ànd ak imaam na baamu yëpp na baamu gi mu nekkoon ak gi mu taxu jëm mooy gi tax dafa armal julli ci biir julli dafa armal julli ci biir julli loolu tax day baamu gimu mu nekkoon ba mu ngi ànd ak imam bi sadaqallaahu al-aziim wa balaga rasuuluhu al